depuis deux mille vingt et dafa am benn phénomène bu am euh, ñu koy wax ay plateforme euh, ay application yoo xam ne dañuy enrôler euh, ay ay ay particulier ci seen ay plateforme pour di def taxi en ligne ñu jàpp nag loolu jaaduwul parce que transport irrégulier yàgg nañ ko xeex moo xam urbain la moo xam inter interurbain waaye nag application yi biñ ñëwee ñu ci bari euh, commencé dugg si réseau yi yàgg nañoo alerte gouvernement bi nga xam ne moo fi nekkoon xam leen ni lii euh, dafay favoriser transport irrégulier mais nag dégguñu nu woon parce que waxtaan nañ ceeg ak transport bi fi nekkoon waxtaan nañ ci ak euh, ñi nga xam ne ñooy autorités yi fi nekkoon waaye jëluñ ci benn matukaay ñu jàpp nag ni autorité yii nga xam ne ñoom ñoo fi nekk li tax mouvement dooleel transport jëloon ay responsabilités jàppale leen. ngir ñu mën a fallu jàpp nañ ne bu ñëwee lépp loo xam ne du dëgg nañ ko teg ci yoon. loolu moo tax nag biñ ñëwee te affaire bi gën di continuer ñu alerte parce que gis nañ police di ci def liggéey bu rafet jamono yi ci euh, jamono yi ñu nekk nii di ci def liggéey bu rafet vraiment mi ngi ciy def liggéeyam. waaye nag loolu pour mu mën a sax pour ñu mën koo dindi completement il faut ministre bi ci boppam dugal ci loxoom. il faut gouvernement bi en général dugal ci loxoom parce que application yi du ministère du transport kese la concerné ñoom ñëpp war nañ ci dugal seen loxo ba nga xam ne nii euh, liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy def te jaarut yoon ñu bàyyi ko. parce que transport képp ku amul licence waroo ko def kon application yi bu ñu ñëwee Sénégal li ñu war a def mooy liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taxi yi nga xam ne ñoo am ay licence su ñu defoon loolu du am ak kenn problème application yi nañ fi jógee muy kalandoo yi nga xam ne dañu doon kalandoo muy euh, ay étranger yoo xam ne tey ñu ngi fii Sénégal jàng doo nga moo leen fi andi woon waaye mujj nañ wut ay ay oto dugal ko dugal ko si plateforme yi di def particulier